ànd ak président Ablaye Wade depuis 30 ans laa nekk PDS du ma seetaan moom fu muy amee gàcce te loolu it ba tey moom a téye ci parti démocratique sénégalais ma nekk ci ci biir di ko sagal nag toujours du ma def dara lu tax dina moom euh, image am yàqu du ma ko mës a lu du ma mës a seetaane it fu ko nit di euh, ñàkkale ñàkkale fulla wala ñàkkale fayda ndax damay jàpp ne bàyyi la ci man donte bokkul ak ni ñu daan waxee mon père mhm. mat na ma ko Euh, nekkoon nga ci na ma ko it loolu. waaw nekkoon nga euh, ci yooyu moo tax fi ma jaar moom yëpp tax na ba tey euh, am na lu bari maa ngi koy rusee mais nag loolu moom nga ma ko am keneen ci PDS mënu ko am. moom rek nga ci respecté noonu. dama ne keneen ci PDS mënul am weg gi ma weg président Abdoulaye Wade ndax dafa ma weg moom. dafa mhm. maa sagal te loolu moo tax lépp lu may def dama ko ciy soorale mhm. comme nag moom fi ñu toll dañuy gunge rek. moom nekkatul un jeu maanaam nekkatul quelqu'un koo xam ne ëllëg danaa dama bugg a yore réew mi wala nangam dafa dañu bëgg bajante dañu bëgg a gunge. Mhm. mais gunge googu ñuy gunge dinaa ci defaru ba ëllëg bu ñu taxawee lim ñu fi bàyyil muy li ñuy wax ndono. Mhm. bëgg naa ci taxaw sama taxawaay. ci biir PDS mais nag duma ci may kenn lu ma mayoon Ablaye Wade. xaw ma ku muy doon nag ëllëg. moo xam keneen waaw wax ji leer nañ Babacar <laughs> mais Babacar dafa mel na nga croiser les bras yow lan ngay mën a nangoo ay nit ñoo xam ne ñu ngi ñëw. bëgg a seppi Babacar Gaye na duma ko dugal ci directoire dugal ko de mën a d'accord naa ba tey man damaa danaa dem sama euh, Kaffrine fële battre fa campagne ñooñu lu fa lañ ko teg. non non waxewuma waxewuma ko noonu Pape Pape ale euh, dafa am loo xam ne rek dama ko euh, juddowul moo tax mënuma koo gàll. namp ma ko mënuma koo gàll mooy di ñàkkante wala di téesante. Mhm. ngir ay teraanga ki ay place dama jàpp ne liggéey bi ñëpp ko bokk ñun ñëpp ñoo ko war a def. bu fekkee dafa am ñoo xam ne tey yàlla daf leen euh, jiital dama ci wax ku mel Omar Sarr parce que tey mooy coordonnateur bi ñu jëm ci wote yi. parce que mhm. loolu président wax ba ba ñuy wote ba pare ñu dem ci congrès. Euh, d'accord nga ci tànn Omar Sarr boobu. aw ma ci benn euh, laam-laamee ndax yoon moo ko may président mu tànn ko ñaar Omar moo doon directeur des élections mhm. kon bu ñu waaj a jëm élection président ne nañu dem élection ba pare suñu paree dem congrès boo xam ne pour restructurer parti bi la. congrès de renouvellement du parti des instances du parti gëm naa ne Oumar Sarr mi nga xam ne moo war a toppatoo élection jël ko dénk ko élection yi mu jàppale président maanaam secrétaire général national parti bi. Mhm. luy xel nangu la lu man lu ma nangu la en tant que militant. lépp lu tegu ci yoon en tant que militant dama koy nangu. waxuma mhm. nag ne moom ci boppam. Euh, am na lu ñu koy mën a reprocher ndax militant la am na légitimité. Mhm. am na base politique. te wane a jiite. gëm naa ne ni ñu doxalee fi ñu toll euh, maanaam li ñu tuddee. ñi ma seen tey euh, au delà de de de de directoire bi. Mhm. maanaam ñi ma seen tey ñu leen di ràññee ci ñuy fës euh, tey lañu ñu faale parti bi démb boo ko seetloo dëgg-dëgg ay nitu nguur lañu woon PDS dafa am ay nitu nguur ak ay nitu parti gaañi bu ñu nekk ci nguur gi ba nguur gi jeex. ñu bëgg a si ci parti bi yëgal parti bi te parti rek mooy tax a joxe nguur ñi nga xam ne nag dañoo nekk ci parti bi di ko téye buñ bokkee ci nguur baax na suñ bokkul ci nguur baax na militant la ñu. comme yow. man militant dama koy seede <laughs> non mais dama koy rek xam nga maa ngi yow dañuy xuloo saa su eh, ci PDS mais jàpp naa ne parti bi taxaw nga taxawaayu militant militant la am na nguur du man rek nag Pape waaw du yow kese mais man yow mën naa la ko seedeel bari nanu mm-hmm. ñoo xam ne bu parti bi soxlaa ñu teew mm-hmm. bu nguur jotee suñ leen ci boolee baax na suñ leen ci boolewul ñu dellu ca parti ba mais am na ñoo xam ne tant que nekkuñu ci nguur Euh, euh, bu ñu nekk ci nguur rek parti bi dafay mel ni daal moom euh, seconde dañ koy teg ci beneen rang suñu paree nag jafe-jafe yi ni ñuy dugg nii parce que génn nañ ñoom ci nguur ay palu ministre rek ay palu directeur général. Mhm. ñooñu nga gis leen léegi ñu ñëwaat bugg a nag. du ko nangu. kooku moo xam mais léegi man tey jii su ma xoolee man liste bi ñi ngay ñi kërti kërti di wax nii ah. tax ma wax loolu. Hmm. man nee leen waxay indi wax parce que dama animé émission présidentielle premier tour ba le 25 mars deuxième tour damay wax ne mënuñu ma limal 10 ministres 10 ministre mënuñu ma ko limal yu monté au front pour défendre Ablaye Wade ak li fi Ablaye Wade fal ci ay ministres. man maa ko wax ku ma mën a limal 10 ministre rek na ma ko génneel. mais Pape. amul coow lu réew mi tey. Uh-huh. li tax parti am solo. li nga dégg tey muy riir ci réew mi. Uh-huh. Euh, ñu koy wax ba ci tudd président. di ci tudd njabootu président bu ma njabootu président yeewu ma rek ci euh, ñi mu jur euh, ci gañoo mm-hmm. mais euh, damay wax ñi nga xam ne moo leen tà tàggat moo leen jàppale moo leen omat moo fexe ba ñu nekk li ñu nekk tey. Mm-hmm. est-ce que yaakaar nga ne tey président war na toog ci réew mi bay toog bay di jël en charge ay combat politique yi ñu toll nii. mais moom foofu laa bëggoon dikk yow. <laughs> ma ñëw rek. Mm-hmm. loolu li ko indi xam nga lu muy doon. mooy bu fekkee aussi cëral nañ leen maanaam. bu ñu doon ay taalibe mataguñu sëriñ. Mm-hmm. ndax vraiment man dama am kerse dama am que président di toog di jël en charge yenn débat or lu ñu dal man gëm naa ne du ci xalaatam moom mu baax ci réew mi du yéeneem bu baax ci réew mi du bëgg-bëgg defar réewam mais boo ko seetloo ba seetlu ko coow li coow li ku fi Ablaye jox teraanga pour nga liggéeyal réew mi rek la. te mm. ñoo ñu tey dañoo dawaat encore ñëwaat bëgg a làqu encore ci gannaaw Ablaye Wade. moom leen di défendre moo leen di défendre loolu loolu loolu man loolu man. mais man dama jàpp ne ñoom ñooy yebbu seen bàyyi dama yërëm Ablaye Wade. xam tax ma yërëm ko. Ah. parce que dama jàpp ne tey jii waroon na dépasser ah di taxaw di waxalanteeg Macky Sall parce que li ma jàpp mooy ay ndaw ni ngi nekk ci biir parti démocratique sénégalais ñoo waroon di tontoog Macky Sall ci ay affaire def na lii convocation lii mais moom bu bëree bay monter au créneau. ak at yi mu am ak teraanga ba mu def ci réew mi ak lépp day poser problème day mel y a quelque chose qui qui ne va pas au waaw ñun de Saloum dafa am loo xam dañ koy faral di wax. Uh-huh. ji nga ki ci mbedd mi di Samba Sura Bali moo xam wéyu la moo xam lu mënta doon. Uh-huh. bu duggee ba ci biir kër gi. Uh-huh. maanaam ba wax fak sa bàyyi lu tegginuwul. Eh, sa bàyyi jog bàyyi fayu wala bàyyi waxanteeg moom ba fay xeex ak moom ba fay foxoj. yow da ngaa ñàkk fu ñàkk fulla googu de am na ñoom daal moom ci bu baax ci biir PDS. waaw mais peut euh, dañu jëlul enjeu yi maanaam seetlu ñu ne euh, bu ëllëgee président lim ñu teete nii at yi ñu ànd ak moom yàgg na trop. Mhm. mais loolu dafay jeex bis dina jot. fala fala de allah kulli xaalin ñu toog comme ni mu ko waxee ñu dem ba parti bi ñu organiser ko ñenn nekk ci ay loxo mais boobaa moom ñun kese lay doon mais xanaa ñun li ñu tàggat dañ ko desee mat te nag combat bi boo ko seetee ba seet li ci ëpp nag. Euh, ay ñu ma joxoon ay teraanga audit yi ngay dégg boo ko seetloo ba pare. ñu ñuy wax audit yëpp kenn ku si nekk nag nga doon gérer say yëfi bopp te moom moo càmbaroon audit yi. mais foofu laa bëgg di ko yow. xool ko xool ko. ba xam ne am na ñu mu dénk euh, defuñu lu baax ñu ci bari dafa rëq seen digg ñaata yoon la wàcc directeur général fii. ñaata yoon la wàcc ministre nit ñi duñu xam lu tax mu def ko ñu naan président dafay changer rek. waaye dama ne Amadou Kane Diallo c'est sur la base de l'audit du COSEC lañ ko wàccee eh. Awa Ndiaye base auditu ARMP lañ ko jëlee ministre kon bu gars yi di wax ne audit yi audit ma ne leen lii du auditu Macky Sall. déedéet auditu Abdoulaye Wade la Abdoulaye Wade moo ne leen yéen defoon ngeen naka su dul noonu ci la ma leen dénkoon. loolu nag audit yi dafa yeggutoon fa mu war a jii nag euh, maanaam sax yegg na fa ndax bu fekkee yegguloon konoon tey euh, ki nga xam ne mooy procureur du leen mënoon woo waaw loolu laa wax ma ne xam nga instruiruñ ko. voilà c'est-à-dire dugaluñ ko woon ci. Euh, processus judiciaire parce que yeggoon phase administrative bi rek la woon na. mu des phase judiciaire mais li nga xam ne moo ci am solo dëgg-dëgg boo ko seetloo paale. moi gëm naa ne euh, kenn koo xam ne da nga yoroon alalu réew mi di ko di ko di ko liggéeyee. Mhm. maanaam ñu dénk la dara ci réew mi war nga rendre compte. imputabilité man loolu dama ci ànd PDS daf ci ànd président da ci ànd ci loolu moo xam PDS la. moo xam bokkul PDS. Mhm. moo xam beneen parti politique la bokk moo xam ci nguuru biir nguuru Macky Sall la ñu nekk. ak mhm. tey waaye li ñu li li ma yaakaar ne rafet lu rafet lu ma ko man mooy euh, moment bi ñu toogee ne dañu def ay euh, euh, yëkkati ay dossier audit te ñu jëm ci élection législative dama gëm ne loolu du élégance démocratique benn waxuma ne bu kenn. def kon yow bañoo audit bi mais période bi la. noonu du période bi rek c'est contexte bi mu nekk. ak ñi ñu ko jëmale ak ñi ñu ko féetale dafa mel dañ leen di wane euh, comme ay sàcc comme ay nit ñoo xam ne baaxuñu kon ñii kat jaruñoo joxaat benn confiance. mais est-ce que loolu doon erreur Abdoulaye Wade parce que xam nga tax mën a erreur Abdoulaye Wade bañ ko càmbaree ba mu yem ci administratif mënoon na ko bàyyi ba mu yem judiciaire rek ku ci set setal sa ba parce que man dama jàpp ne man su ma yoree ñu may tam dëmm di ma tam dëmm sàcc naa sàcc na mu leer ma na sàcc ma bés bu ma wooyee ne ma kaay wax damay man maa fay jiitu bu ñu ma wooyee convoqué 9h ma taxaw fa leeral lépp pour sax askan bi mën a xam ne ku set la. waaw loolu loolu aussi d'accord nag yow ci approche boobu maanaam yoon bu la mayee sax nga euh, iiru maanaam. Mhm. bu amee kiiraay euh, war nga mun bu ñu la wooyee nga wuyu ji mais aussi euh, waruñu def aussi populisme maanaam fexe ba population sénégalaise yi di gisee ñenn ñi képp kuy def politique presque comme ay sàcc lañ dama la jox exemple rek. Mhm. soo ko seetloo 2000 bi ñu jëlee réew mi presque jàpp naa ne image yu. ay ñu doon gérer gérer bu bon amoon na fi. ñu mhm. mille 2012 euh, euh, beneen régime ñëw image yu ñuy gérer lu bon nekk fi te boo ko seetlee ba seetla ko tey ñi nekk ci réew mi di ko doxal. Mhm. amul kenn ci ñoom koo xam ne. Mhm. bokkoo woon ci li xewoon 2000 60 ba deux 2000 wala bokkoo woon ci li xew mille ba 2012. kon lu muy niru dafay mel ni dañ bëgg a présenter classe politique bi. comme ay ñu bon ay sàcc man man image yooyu man mënuma satisfaire parce que man duma loolu bëri na ay sénégalais yu mel noonu mhm. am na sénégalais yoo xam ne dañoo sete wecc am na sénégalais yoo xam ne seen euh, politique mooy fexe nu ñu defaree seen réew mais du pour nu ñuy defaroo ñoom malheureusement malheureusement euh, euh, ni ñu koy doxalee média sur médiatisation bi man gëm naa ne moo indi lii c'est-à-dire Macky waroon na comme ni mu ko waxee day def les comptes de la nation mu am temps wu comme président def na ay audit yi nga xam ne nii moom def nañ ko ba pare mais kenn enclenché gun processus judiciaire mu ne dinaa xool diir ak fii ak may toog 6 peut-être fii ak décembre comme war naa defar discours à la nation. Mm-hmm. ma xool diggante bi càmbar am dossier bu dëgër. ma taxaw ci kanam askan wi ma ne leen dama leen waxoon dinaa def les comptes de la nation def naa ko yónni inspection générale d'État naturellement yónni cour des comptes ñu ñu xool bu ñu paree indi kayit yëpp dajale ne voilà man de waxoon naa naa def la condamnations fii laa ci toll ñii lii la ñu def ñii la ñuy def ñii la def kii dañ koy war a traduire kii dañ koy war a defee nangam loolu moo doon gën a crédible que ñu toog jamono veille électorale moomu ko